jarama mustal fulɓe e hande hande jamanu hande mi heeɓi hoɓɓe ɓe akkolda ɓe hoɓɓe ko hoɓɓe ko bartelmi dias sakti jan yum a babacar fall e anta babacar gom a fana mbijam mañana ibrahima bokumna bokumna fa boo xam ne jàngu ko jàngu o jarama mbaa folaal yore ko wala mu dox ñaati fii ci Kolda ndeysaan lu la ñu woowee Abdoulaye Diallo ah. kenn ki ñu koy woowee Khadjatou Bonde ah, ah. kenn ñu koy woowee Daouda Camara keneen ki ñu koy woowee Sadio Camara te ñoom ñoo dalal fii ci Kolda ku ñuy wax Barthélémy ku ñuy wax Anta Babacar Ngom ku ñuy ku ñuy wax Bougane Gueye Dany ku ñuy wax Thierno Bocoum ak ku ñuy wax Pape Djibril Fall tey sa coalition moo teew fii ci Kolda kon nag sama waa ji jox na ko ci alpulaar mbali mali ko lakka mooy laal mustal fulbe on jaarama ko mi woni ko mi di keppen traditionnel on Italy. voilà waa Kolda yëpp génn nañu. vous avez vu l'arbre là arrêtez un peu est-ce que ñëw ngelaw bi Anta Babacar xam na fi xam na fi kooku xam naa nii ci biir Fall waaw kon nag ma nga daan góor bi wàcc nañ vous allez faire le tour de l'arbre sax ku doon commandé wala ngeen def ak seen oto yi ndeysaan Moustapha Ngéwén Ndiaye ndeysaan mu ne woon moo ma indi ma ko yettode makko hande sayi ɓe wimi bana micro o mi haala ɗon kadi saare o haaldani e minen koɓe jari kala parti ari hoɓɓe jahi jadi mbe gawi kala parti ari jaha e makko jadi alof lakkini aɗa joni aɗa ino duwa kini aɗa ino duwa kini lafane muɓe keri aɗa ino duwa kini mbaɗi mbaɗi koloraka boyaru e ndefuma ngeen wàcce rek sama liggéey rek ñu ngi leen di am Moussa Baldé wàcce leen kon nag wàcce leen ñu ngi leen di ah waaw ma ne bani ma ne ko ma ke mo dalu e en koy se puna duma su jalo koto ye na ko to wa duma su jalo koto wala mu jumat wala mu parti ni fant os ka ka mo parti ni fant il fallait Djita. mooy war kanam bi Barthélémy Dias mooy war li nga xamante ne Anta Babacar mooy wéy gi Anta Babacar mooy war wéy ñëw si dëkk bi da ngay wër garab gi ñaari yoon Anta Babacar Ngom mooy wër garab gi noonu ndeysaan image bi rafet na

Anta Babacar Ngom moo nekk noonu image bu rafet da koy wër ñaari yoon ci tradition la képp ku fi ñëw da ngay wër guy gi li mooy aspect mystique bi nag fii li mooy aspect mystique ni grand mais grand li lan waaw mais ah tamit boo ñëwee way boo ñëwee ci dëkk ñu am benn tradition bu ñuy def da nga koy respecté mooy boo ñëwee da ngay wër guy ata Babacar Ngom ma ngay wër guy na si otom ata na guy gi ñëw Babacar Ngom ah, war na guy gi xam naa dañuy jéem a laaj à peu près lii mooy lii ka gàttal waaye Cheikh moom tamit dafa war a war guy gi dañu tay yàlla na leen lay yum kër gewel yi la nekk te dara lu ko métti te ka yaa jëf laa lii sa sabara bi Anta Babacar Ngom mooy na guy gi Euh, respecté na tradition bi ndax li moom mooy aspect mystique bi nga xamante ni voilà. voilà Anta Babacar moom moo nekk noonu respecté na tradition bi moom mooy boo ñëwee si dëkk bi da ngay wër li nga xamante ni moom mooy guy gi wuy ko ñaar yoon voilà comme ni ngeen ko gisee. Eh, ay